di remercier aussi tonton Ndiaye Lo ndax nit ku am solo la. Mm-hmm. jërëjëf. dafa am kilifa ku am kilifa rek am solo. boo ko amul amoo solo ku yee ku wéeruwul da ngay yomb ba ma. macha allah. ñun nag kontaan nañu trop trop trop si bu ma leen ciy dolli rek. Mm-hmm. te loolu dama koy teg Zeyna euh, sa loxo wala soxna Dégène muy problème làmb ji. macha allah mm-hmm. parce que signal bi ngeen di jël si RTS. ñun bu ñu koy seetaan si day am interférence. te ñun comme dañu comme dañu taamu di seet ci yéen. comme TFM mooy seen télé. mooy suñu télé ñun ñëpp dañu abonné ay carte la ñu yore. Mm-hmm. comme si yéen ñuy seetaane làmb ji. Mm-hmm. problème mu interférence yooyu il faut ngeen dimbali ñu si. dëgg la xaw waxee ak Aziz mais RTS ni mu leen di joxee signal bi ñun day am interférence bu garaaw. loolu kay gaañaa ngi koy dégg njagaa ngi koy dégg. waaw kon jeex na man daal maa ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf kontaan naa. jërëjëf yàlla yàlla fay. Diouf sëñ Bass kontaan nañu kontaan nañu Diouf macha allah Zey tata dëgg li ma wax ci kaw ba ci suuf yëpp am solo. ñu fenn yee ni mel. mais nag li ma ci gën a neex. mooy li mu wax ne émigré yi moom la ñuy dugal par at Sénégal. tata dëgg 700 milliards. kër yu rafet yëpp émigré yee ko fi tabax. kër goo dem Sénégal. am na benn émigré au moins bu nekk à l'étranger boo xamante ne moom mooy jàppale waa kër gi bu deful lépp ci kër gi tamit. la ca ëpp moom moo koy def. dëgg la kon ñooñu tata dëgg dañ leen war a bàyyi xel.

te problème yi am suñu génné à l'étranger de fa bëri. Mm. te wax deug fa yalla tamit sentiruñ ci loxo gouvernement mm, mm. déjà ni mi wax problème passeport xam nga passeport tata dégg lu ci day ni passeport kese. passeport kese. Ah. war nañ ko mëna a car problème carte d'identité dañ ko fay am tata dégg na. prix ñi nga carte consulaire. voilà étranger yi nga xamante ñom ñoo nek ci prison yi. ñom ñepp doon nañu kenn faale wu leen. waxal sa papa mu jël ki ci ligne. jëlee ki ci ligne. <laughs> maaleykum salaam Mbacke maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu Dégène ak Zeyna. wallaay soxna si sargal nañu la. waaw euh, dëgg wax léegi ci ci génn sànq li mu doon wax ci affaire passeport yi. Uh-huh. mois de septembre sama doom université la nekk. Uh-huh. war a déposer euh, inscription. Uh-huh. léegi bi mu demee amba ñu laaj passeport am. mu dem ambassade pour déposer ñu ne ko da ngay indi sa extrait ñu yóbbu ko Sénégal. mu am sept mois léegi bi mu ko mu euh, extrait bi am sept mois. bi mu sept mois man sama jëm boobu sama passeport jeex ma dem di seeti ndax boobu euh, pare na am ñu ma non léegi loolu awatul ndaxte Macky Sall nee loi boobu nañ ko effacé li ngay def mooy indi carte man boobu aw ma ko te moom bi mu amoon ma nga Sénégal dafa réer. Hmm. léegi am na certificat de perte li ngeen ko waxoon def na ko man tam li ngeen def naa ko. Hmm. léegi lan lan ngeen bëgg exactement mu daal ne li lay wax daal boo ko mënul nga dem waaw wala nga xaar commission ñëw fi te xamuñu kañ nga fi commission di ñëw boo mënul loolu na nga seet leneen looy def. waaye loolu la ma wax de Ndoye ki nekk ci bunt bi loolu la ma wax. wax na ma ko wax na ko sama yeneen morom. bu fekkee ne dañ fee nekk te nekk bi ñu fi nekk. ñoom nekkaluñ ñu fi laa ñàkk teggin yow ban dëkk nga nekk noonu. Italie laa nekk. Mhm. na waaye li ñuy dénoncé man nag mu wax ma ndax xale bi. parce que tamit nag ñuy dénoncé ah, rek. Ah, wax noonu wax def affaire yooyu ba ba ba xale bi jàngul. parce que jafe-jafe sénégalais yi biñ ko commencé bi léegi koo ci wax mun na la ambassade ak consulat waaw xam nga dégg nga. xam nga dégg nga li ko indi. xam nga dégg nga li ko indi ah, ma ne. ca Jëdda ambassade consulat France am boo nekkee Sénégal te génnoo Sénégal. yër ko ci ligne bi Thiat. allo. ah Zina man maa doon wax léegi. Ah, ah, waaw. xale bi jàngi na. non mu jéem a dem jàngi parce que ne dafa dellu si waat mu dellu si waatee ne leen man. dafa universitaire ba pare ngeen. heureusement eh, après bëgg fa nekk fa di waxanteeg ñoom ñu doog a jël. Mhm. passeport bi. ne mhm. ko dañ la ko yokkal 6 mhm. kon loolu mënoon nañ koo def te bu insisté wul bu insisté wul woon. ndax jàng ba am 3 université dañuy yàq njàngam. dëgg la kon def. comme que ñoom mënuñu ñoo dimbali te tax ñu nekk lan lañ fiy def booy booy eggee li ñu lay njëkk a wax mooy ne. dañu baax ñu defal la passeport. léegi mënatuñ la ko defal parce que ne loi bi mu ngi jóge ci kaw Macky Sall moo génn loi bu bees xaw ma Macky Sall ko génn xaw ma kenn ko génn ñu loolu intéressé ñu li mhm. ko am mhm. waaw parce ne dañ fee nekk ñu fay suñuy taxe mhm. nekk fi di liggéey man sama mais loi bi ñu wax moo ko génne ban la am naa trois heures xamuñu ban loi moo génne loi ne non non moo génne loi ne ku indiwul euh, kii nu mu tuddati ku indiwul carte d'identité bu ndaw bi buñ la defaloo si loolu yàgg na sax c'était avant waaw non non non non boo indi euh, extrait de naissance. à mhm. sa passeport bu jeex C'est une boîte extrait du Sénégal. C'est le ci numéro. Mhm. daal le la sa passeport. Mhm. ah lolo, kay arrangé immigré mais d'identité wala les séjour séjour nga nar kaa perte ndax passeport te passeport bi sa waa dëkk war nga faa defaral ndax it dëgg la am du waaye yéen yéen yéen est-ce que ñu ngi leen di defaral carte d'identité foofu. carte d'identité yi nee na defaratuñ ko commission bi moo fiy ñëw. te comme kañ la fiy ñëw. problème la problème la problème la problème bu rëy problème bu rëy moo am ci ci bitim réew. pour daan liggéey bu njëkk carte consulaire. foofu ba mm. daan mm. ci nga daan am passeport. Mm. boo ma saa di tukki te boobu. bu ñu defalee carte conseil mën nga see voyager. ah seet nu ñuy def. yooyu jamono nag laa wax. Hmm. dama leen ni boo xasee génn boo génnul Sénégal. Hmm. mën ngaa mucc ci gouvernement bi. Hmm. ndax koo fa li bokk mënoo koo yow. waaye soo génnee Sénégal. ka fa gouvernement bi yóbbu. moo war a nekk sa ambassadeur nekk sa garde corps. ba lu xew ci yow mu xam ko. bu njëkk loolu mu amoon. man daal yéeme na Alaaji. waaye li ma lay wax rek moo am. dama la ni. yaa ma neex moom tànk ñu ngi koy fecc nu mm. waaye neex te be ak baynal sénégalais yi seen droit di ko jaay yeneen ressortissants étrangers yi xam nga dégg dégg dégg liñ fi waxoon sëy uh-huh. bañal leen seen droit te di ko jaay ay waa yeneen dëkk yi dama koy bañ a wax allo allo Adja soxna si waaw na ngeen ñu ngi fi ñu ngi sant bu baax waa damaa bëgg a bokk ci yow rek la déglu yow lañuy déglu waaw maa ngi yéen ñëpp ñu ngi lay bu baax. naa yow bu nekk nii macha allah dangaa màgg. <laughs> sama doom dafa màgg de macha allah. waaw waaw waxtaanam rafet na ñu ngi ko suivre bu baax a baax. <laughs> <laughs> man nag maa ngi wootee daanaka Genève. di mm. contact la en France. mais ak nekk. ngi nuyu waa Genève waa Annemasse waa France ñëpp. man problème mu problème mu. police Sénégal bi nekk aéroport. police su Sénégal bi nekk aéroport. nekk aéroport. waaw lu lu lu ñu defati. sonal nañu nit ñi. Hmm. ku ñëw ñu ne la sama doom fag yi da doon dem hmm. ñu ne ko sa passeport ba empreinte bi benn daf ci am benn boo xam ne bii feeñu di xaw ma jàpp lañ ko wax. laaj ko xaalis. Hmm? mu jox leen vingt cinq mille. koo bàyyi pour mu <laughs> ah, ku ko fi waxoon keroog. <laughs> waaw. parce que mosutoo mosutoo mosutoo na passeport passeport benn tampon xam nañu ne comme passeport bi amul tampon passeport bu bees ni lañ koy passeport bees lañ koy. waaw bu bees dégg naa ñu ñu bees ni lañ koy def dañuy nàndite. waaw te du moom rek nag. Hmm, dégg nañu ko. soxla nañu trop trop ci police Sénégal bi nekk aéroport. ah naqat na ma de ne ma doomu policier la jëlee leen fi wala ñu topp leen suivre leen. ñu mboxum mi ñuy mboxum nit ñi sonn. nit ñi sonn na ci tey sonn nañ trop trop te ñoom ñoo nekk homme de loi yi ñoom ñoo la war a defal ci ñoom boo amee problème ci ñoom nga war a taw. Mm-hmm. ñoom daal. kewal daal am na kenn ko ko fooxoon ne ba muy génn tamit ñëw na taxaw ba foofu xool passeport am mel ni ku ci bu ñu xoolee daal xam ne mosoo tukki daal amuloo benn visa. si la ko jox 100 euros waaw ci mu jox ko 100 euros ya mu amoon. doy na waar doy na waar si te man daf may naq. maa foog way takk de ndax sama baay ci la bokkoon. xam nga sa sa baay policier la woon waaye li yéeme na. dafa yéeme non xam nga dégg nag homme de loi ak takk der bokkul. ah wax ci bokk allah ji. bokkuñu. takk der yomb na. Mm. waaye homme de loi. Mm. da ngay jox respect loi xam loi xam loi. ma wallaay wallaay. am na ci policier yoo xam ne yi ñu mm. ngi aéroport. dëkk la mm-hmm. waaye addina jërul ñu dee laaj ñaari cent franc. seen dignité seen dignité walaay ak la sëy dëkk la ak am ñoo xam ne dañoo takk der gi ba pare. xamuñu loi duñu homme de loi. ah lim lëmbee na réew mi daal. waaye lu day ni aéroport ak ña fay jaar. Ah. koo ci laaj saa euro te xamoo ndax. Hmm. attention nañ ci def attention. Hmm. Hmm. nit mën naa woyofal mbubam loolu ñëw aéroport di jàll. te bàyyi ginnaaw mu mu diis. ñu ci baree ngi nii tey takk der. leen di yóbbu mooy xeeb nit. te koo parce que xeeb ci àddina moo tax sa kër. homme de loi. dama waxtaanee suñu doom ju baax si sama di sa xarit di sama jigéen. Kumba Nguy Njaay Caam. Kumba Nguy Caam. yaay euh, doomu ajaawam bu sama mag. dama ñëw ni sarax ci biir. am police yu ma doon yoo xam dañuy def stage. ñi mm. ma conseillé ma ne ko Kumba. Mm. mu ni kooku de homme de loi la ndax mm. loi la jox respect. kooku faaw nga yooyu euh, caat caat. kooku kooku nañu woy ci moom gis nga fi mu ne nii. li ma la sànq rek caat. tàng du ñu fee seet. ñiy fecc te man ko. bu ñëpp tëbandoo po yi wuute. dëgg la. waaye lu day ne aéroport Léopold Sédar Senghor ñëpp di ko wàcc. dëgg la boo amee aw fit. ñu la wooyee homme de loi ngay laaj ay cent euros. Mm. amatul juddu bu rafet joxatoo sa bopp respect. Mm. homme de loi nag jikkoy gërima la daan yor jikkoy faari. dëgg la. ndax dañ koo takkal loo xay tëkkaluñ ko benn nawleem. wallaay wallaay wallaay wallaay ba pare dénk ko ah. ak gëdd. boo ko xamul ah, ah, waaye doo homme de loi xamoo loo doite loo. waay waay xaaral ñaata passager ñooy romb ñii cent euros ñii vingt cinq baax na baax lool parce que ah, képp koo xamante demati nga aéroport policier ya ca buntu ba di la laaj ay cent euros ah. xaalis pour mën la ah. naan laan sa passeport dafa am problème di nga xam ne man de dëgg dëgg dëgg du ñëpp nag gaa du ñëpp yow tamit mën nañ fàtte ci laaj tudd ñëpp wallaay ah waaw tàggool ku wax lépp nekk waxkat xanaa tàggu ñu defee nga doon seetaan wareef di remercier bu baax complexe teg si Sophia Coiffure. ma doog Boubacar sa yaay ajaratu Fatlaay kenn sama yaay tata Fatlaay mhm. di leen wax à lundi prochain donc. ndeysaan soo dee maa ngi rek di ñaanal euh, Cheikh Sidiye Diaye bi suñu xarit. ndeysaan ndeysaan suñu sëriñ. suñu sëriñ ndeysaan. ak nek Fatou Lay Kina mu nga wax. ma doog Boubacar madame Sall. Yalla nako Yalla def jam bu baax. Ya Fatou Gueye waaw. ndeysaan di siyaare bu baax nak. nga xam ki moy Serigne Bara mu di Lamine. ndeysaan euh, de ari les suñu. sunu. di suñu lepp di doomi soxna. yàlla ma xëy ko lool. macha allah ak nag Basiirou Ndiaye suñu doom. ngay faal. ndax doom kenn du ko itti. ndeysaan nga li wax ni nga am mag. ndeysaan waaye nit day yeesu mbote. di ñaan lu baaget tubaarkàlla euh, mu barak ñang suñu xarit di gërëm ni bu baax. Amin Tall suñu doom. Zurich Zurich na ko yàlla jàppale bu baax ñu koy sargal. di gërëm it madame Diop. ñu wax Ndeye Marie Diallo. Euh, madame Papa Diop. di ñaan bu baax nag ajaratu Leena Fall Diagne. di gërëm nag it ki nga xam ne kii duma ko fàtte mukk muy Awa Diop mm-hmm. ak soxna Awa Gaye soxna Asou Fall ak sëñ Mbakke Madina Poroxaan ndeysaan ndeysaan walla ñu ngi koy sargal Poroxaan di ziar waa Poroxaan ñëpp ci bu ñaan nag it bu baax it sañ Fallu Loo mi nga xam mooy taalu bépp sëriñ Abo mu Cheikh Amadou Fadal Mbakke macha allah ak sëñ Fallu Diop ñoom ñëpp ndeysaan ki may tëjee nag mooy soxna Saali bu Njoon macha allah ajaratu Anta Ñang jërëjëf Allah yal na léppam yokk te mu wér di ko ñaal baax ak Khady Diouf commerçante ne Colobane ak ki nga xam ne ki nekk tam tubaarkàlla mm. yaande ñang xarit sama mag teg ci sama mag ndeysaan gërëm nag mm. mu baax ajaratu Ndella Wade ndeysaan yal na ko léppam yomb amiin amiin di ko ñaal bu baax ak man Sour Mbay sama xarit jërëjëf ajaratu di jong jërëjëf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 ak Ajaratu Fat Samb docteur nous ngi koy sargal bu baax a alaaji di nuyu imaam euh, Mohamed Omar Niass ah, bu Ngor Almadi ñu ngi koy sargal bu baax a baax waaye jigéenu immigré nag laay sargal tey xam nga ne Aïcha Thioy madame Sall yaay Mohamed Ahmad Bamba ak Fatou ca Italie waaye Aminta Tall mu ngi ca Zurich wax nga ko léegi mm-hmm. Rama Diallo mm-hmm. madame Silla mu ngi ca New York waaye tamit Aba Kanté mu ngi ca Montreuil ji ay jigéen ñu mun góor daal fa tabarakallah macha allah Zeyna Diagne mu ngi ca Espagne ñoom ñëpp nag ñu ngi leen di sargal fa Euh, grande restauratrice mon tamit ba États-Unis ou à